ziar di leen jaajëfal ñu ngi fii ci yoonu Saint-Louis bi boo génnee sàkk rek ci dëkk bu ñu naan eh, Ndande Diop Ndande Diop fa la choc bu metti bi amee ci ñàkk seen bakkan nag du ñu def rekk lu dul jël kenn koo xamante ni mbir mi moom ko bokkoon na ci ñi nga xamante ni ci ñi doon dimbali blessé yi mën nga ñu wax affaire bi mu demee waa affaire bi moom Именно труп, именно труп. Вау. Прямо метинатор пропненький стоял со слением. Гара. Забедняю моден дяпали жандарми понедельне порите от овекарни. Вау. Десидемо именно труп, именно труп. دائما يمضي جزلاف وحقني يولمضي لكن الله وحنيات الله ولدي منبرنا الطرب أما يوهم الكار بدفلين ويوي ينتي الكار وينلين ديني ديني أبنا جزلاف أبنا جزلاف أبنا جزلاف فرما فرما أبنا parce eh, que man sama oto yéen yi si nekkoon sëriñ ci nekkoon client yi ma yeboon yëpp daf leen jox seen ñoo doon sànni koolee noonu fi ñu tëdd noonu vraiment métti na trop mais yàlla na fi yem daal face a face. Wow, finire face a face nel limbo tentecare betano e a pigliare mor. Prema, autobilicide Yemene. Nera, yalma, koyalla, Yemene, fi. Prema, wow, milimetrine tarıp tarıp tarıp tarıp tarıp tarıp tarıp yapmak fiyallayamadım. Ya bunu giyini vahak yav. Simunekini kaar bi ne am na ñi nga xam ne dañoo ñàkk seen bakkan mais ñu ngi ci suufu kaar bi ba léegi génn wuñu parce que kaar bi bi mu dalee ak caminho, vi caminho da passagem de Mudalé a Carme, praças eh, e edifícios e tenho da foto a minha sorte dele, não me saponeria que te. Voilà, eh, dis-le bis bi nga xam ne dal nañu ci yoonu saint bi Ndiène Sarr nga gis ni boo ko rombee tuuti ci dëkk bi ñu naan Mandu Diop gis ngeen accident bi ci am ñu bëri ñu ci ñàkk seen bakkan mais jamono wax ak yéen fële hôpital Amadou Sakhir Mbaye dañu soxla li nga xam ni mooy sang yéen population bi waa Louga dañ leen di ñaan di lancer appel ngeen dem léegi nii hôpital Amadou Sakhir Mbaye ndax blessé yi dañu soxla li nga xamante mooy deret pour ñu mën leen sauver di wax rek ñi ci yàq seen trop am na ñi nga xam ne ñi ngi tëdd nii jot ci. weesu yi waaye di wax rek loolu moo fi xew bari na ñi ngi naan dix-neuf waaye ñi nga xam ne fekke nañ accident bi ñi ngi naan ëpp na nañ ñi teewlu saa su ne ci Jump Post di wax rek ñi ngi fi nga xamante ni e fi bi nga xam ne dal na askanu Sénégal mu nekk loo xamante ne lu metti la tey askanu Sénégal yëpp xëyee ko muy accident bu metti bi nga ni moo am ci e, yoonu e, Saint-Louis bi nga xam ni rek du ñu def lu dul rek continuer wax leen li fi am boo leen gisee suma gannaaw mooy mbaam um bi mbaam bi ngeen gis ni mu mu tëdd suma caméraman bu ko mënee orienté mbaam um bi président bi nga gis ni tey car Ndiaga Ndiaye bi ak cab bi ak camion bi car Ndiaga Ndiaye bi dafa doon moytu li li nga xamante ni mooy mbaam bi ba daa di song li nga xam ni mooy camion bi mu bari ñu ci ñàkk seen bakkan ba nga xamante ni rek mën nañu ni dix-neuf ci njëkkoon ñàkk seen bakkan lim mi ngi tolloon boo ko calculé ci nombre bi li nekkoon ci kaar njegenjaay bi ak ci camion bi tolloon na ci quarante quatre personnes ba ñu ñëwee rek dix-neuf ñoo ci saasi waaye jamono jii ñuy wax rek am na ci kenn koo xamante ni dafa mujj ñàkk bakkanam bay di wax rek que ñi kon lim bi gën na yokk waaye am na ci ñoo xam ni dañ leen évacuer fa ba iliko moo leen jël yóbbu leen fële ca jamono jii ñuy wax nag fi mu nekk population bi ñoom ñëpp ñëw nañu ndax boo déggee accident yu mel nii ku ci nekk rek day jàpp ñu mbokk ma ngi fi ndax Sénégal ñëpp ay mbokk lañ lu mel loolu am.